salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum adduna salaamaaleykum yéen ñi ñuy suivre fii ci People 221 ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan réew mi Sénégal yal na suñu borom doole jàmm tey nag ñu am mbégte ci dalal suñu xarit suñu sëriñ suñu soppe koo xam ne ñaari heure bi daan na fekk mu xat lool waaye heure bu réew mi nekkee ci ay jafe-jafe lu mu xat xat xat xat dinañu may même bu dee benn dii minutes parce que ay waxtaanam ndaw ñi dañ koy soxla maa ngi lañ koy soxloo mu di sëriñ Mbacke Nouroullah fas yéene nañu waxtaan ak moom lu bari sëñ bi dañu lay bàyyi nga nuyoog ñu lay siibur. salaamaaleykum wa rahmatulah wa ñu ngi lay delloowaat ab nuyoo bu tedd jëmm ji eh, di nuyu Sénégalais yi fépp fuñ mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu ñu tàbbi ci waxtaan wi. ah fi may njëkkee eh, sëriñ bi maanaam wallu ñaan. dëgg dugg ci wala loo donn la wala loo jàng la. waa sang xam nga ñaan moom li may faral di wax bis yàlla sàkk nit ki mën na doon maamam mën na doon baayam mën na doon ay kàggoom waaye xam-xam mënee su koo doon. Mhm. Euh, dama ne ñetti xeeti xam-xam moo am xam-xam bi nga xam ne sunu borom moo koy wax yu jaam bi moo gën a kawe ci xeeti xam-xam yi. Mhm. xam-xam bi nga xam ne nit ki daf koy jàng ba xam ko ak xam-xam bi nga xam ne nit ki daf koy dund. Mhm. waaw lu mel ni mbërum làmb mi nga xam ne dafa jàng bëre jàng bëre ba xam kal yi xam lépp loolu loo xam ne lu mu découvrir la boppam ñetti xeeti xam-xam yooyu moo am waaye képp koo gis mu toog naan man maa doon sama maa maa doon sama baay bàyyi ko fa te dem xam-xam de su ko doon xam-xam lu ñu jàng la bi nga xam ne nag suñ borom moo koy wax yu jaam yi moo gën a yëkkati ko ci xeetu xam-xam yi loolu nag mbirum baatin la am na ci loo xam ne mën su cee développé mënee su cee yaatal waaye ci kaw mbirum ñaan bu ngeen doxalee kooka dina xam lan mooy mbirum baatin ak lan mooy mbirum saahir ak lan mooy li nga xam ne mooy xam-xam bi nga xam ne dañ koo jàng ak bi nga xam ne sunu borom moo ko def ci jaam loolu nag yennet ci ay nit la bariwul waaye li importance bi nga xam ne moom moo ci am mooy sëriñ si nga xam ne dañoo bari te kenn ku ci nekk li gën a bari ci ñoom bu ñu toogee di wax dañu naan damaa doon sama maam damaa doon sama baay man loolu du ci nawee nit moo xam ngay séréer moo xam ngay pël moo xam ngay wolof koo mën a doon man duma la naw ci xam-xam boo doon xam-xam boo jàng ci laa lay naw ndax sa baay mën na ëpp xam-xam ci réew mi te yow doo xam dara mm-hmm. sa baay mën na ëpp daraja ci ci réew mi te yow doo doon dara mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. nit ki li muy doon moom moo koy incarneel boppam jàng ba jàng jotee booleek dogalu sunu borom wàcc ci moom ni ki man mi nga xam ne daanaka lépp loo xam ne mi ngi ci man rek nekk ci sama dënn bi maa ngi ko amee ci mbaaxook Serigne Saliou waaw am na ci loo xam ne su ko leeral ci écran waaye mbirum la moo xam ne man maa ngi ciy sant yàlla te maa ngi ciy jëf lanteeg ay nit ñu ciy am tawféexi sunu borom. foofu noonu foofu noonu dama lay dog hmm. ban ban ban relation nga amoon ak Serigne Saliou yàlla yàlla yokk ay leeram Mbacke Balla. sama relation ak Serigne Saliou mbirum biir la man naa ne ci ak dundam daanaa ko fekk foo xam ne kenn du ko fekk. man bokk naa ci ñu ko mujj gis ci ak dundam. nit jóge na Europe jóge fenn fu nekk ci àdduna ma jàpp ci loxoom ba wan ko Serigne Saliou mën naa ne ci laa njëkk lekkee fukki junni boobu ab xale laa wan nit Serigne Saliou mu jooy bég génn na ma Italie laa jógee sama dund gi yëpp maa ngi koy soo a gis Serigne Saliou yëkkati fukki junni may ma ko mm. loolu ab cër la ak yeneen ak yeneen ba suñ jon yàlla tey barki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gisante ak moom barkeb Serigne Touba mi ma yaakaar àdduna ak alaxira maa ngi gisanteeg sëriñ Saliou te loolu mbirum biir la mm-hmm. aajo juma ma yitteel waxuma ju ma yitteelul de juma ma yitteel bu ma ko waxee fa saase lay faju ak képp koo xam ne dafa am aajo jëme ko ci man damaa jëlale sax mbirum ñaan yi nga xam ne maa ngi koy defal nit ñi di ko sukkandikoo ci alxuraan ak ya ca aju waaye sama digganteeg Serigne Saalihu rek li ma ciy def di ci dindi te loolu ñi ma xam-xam nañu ko mhm. bari nag coow li bari na am Serigne Saalihu indi ku nekk nga ciy wax waaye ñi ci am cër ñu néew lañ mhm. ñu tuuti lañ mhm. ma wax la ko nga di ko dégg gars yi dañ parce que xam nañ ni nit ñi amuñ sago ci sëriñ saalihu mhm. waaye sëriñ saalihu ma wax la ñi ci am cër ñu néew a néew a néew la mhm. man de kenn ëppale ma ci ab cër mhm. ñi fi newoon ba jóge feek ñi fi nekk ak tey ak ñépp ci bokk yam loolu moo ma ko may ci boppam te barki alxuraanul karam man ak moom ñooy bokk fu ñu dëkk ëllëg barki sëriñ Touba jërëjëf loolu am na solo euh, maay doomu diw maay diwoo ko gën euh, fi may njëkkee ci waxtaan bi mooy cosaanu ñaan laa bëgg nga fërëm fàccal ma ko tuuti cosaanu ñaan Euh, duma ma ci guddal waaye li ma ciy wax rek lu gàtt la mooy ñaan lu wér la ñaan lu am la ñëw na ci alxuraan ñëw na ci hadis yonente bi ñëw na ci li nga xam ne moom mooy cosaan mm-hmm. waaw yonente bi sallallahu alayhi kenn ku ci nekk xam ne ne jàppoon nañ ko ci ñaan mm-hmm. ay xarfa xuufa ak i dëbbal dëbbal moom lañ ko def ba suñ boroom muccal ko mm-hmm. génne ko ca mbir mooma ñaareel bi yat suñu boroom dafa santaane sax dafa sikk sax ki nga xam ne du ko ñaan suñ borom nee na man de boo ma dul ñaan sax dama lay mere damaa bëgg jaam bi di ma may di ma ñaan ma koy may ndax man li ma yor ci ay magasin kenn xamul nu mu toll te yéen jaam ñi rek yéen a tax ma sàkk ko beneen forme ñaan bi nag mooy bi nga xam ne nit kiy dund ci àdduna dafay farata ci moom mu di ko def ndax nit ki booy dund cat yeeg gàllankoor yeeg liggéeyante beeg surtout jamono bii ñu toll surtout am na lu ma la waxoon sax dama koy dugal ci biir muy dañoo toll ci période boo xam ne bu doy waar la muy période nawet dafay bari ay danger yoo xam ne day xew mhm. dafay bëri ay xew-xew yoo xam ne day day xew mag ñi sax ay jamono daawuñ nangu jamonoy nawet xale yi di génn mhm. wala ñuy tukki mhm. wala ñuy def yu bëri waaye jamono dox gum dox moo tax fi mu ne yooyu garaawalatuñ ko waaye bu mënta tënk nit ki ba mu tee doxi soxlaam wala mu def yu bari nit ki na farlu ci ñaan nit ki na farlu ci wut lu koy aar nit ki na farlu ci wut luy dox digganteem ak cat yeeg bët yu aay yeeg yu bari yu bari nit ñi garaawaluñ ko gëraawalatuñ ko waaye gàllankoor yu bari yi nga xam ne mi ngi am nga koy gis ci nitu internet yeeg hmm. nit ñu siiw yeeg ki nga xam ne xale bu ndaw la da nga ko doon gis démb tey nga xëy ñu ne la dee na mhm. am na ci yoo xam ne li may wax bis bu yàlla sàkk yàlla suñu borom dogalewul noonu mhm. ñooñu seen dund des na lu bari mhm. waaye dafa am gàllankoor boo xam ne moo dal fi seen kaw loolu fëkk seen bakkan wala mu yàq seenu dund ba dootuñ amati benn importance ci kanamu doomu aadama yi te li ko ñu bari li ñi muy dal ñu ginnaawal ñaan lañ man am na ci ndaw soo xam ne dafa ñëwoon na dama daan njege naa yoo cinq millions xam ne daw ma ci am soxla waaye bu buñ ma masaa wax lu jëm ci ñaan daw ma ko fulaal waaye damaa dem ba xam ne li ma ñàkk ci sama àdduna ay xarfa xuufa ay nit ñoo ma ko def mm-hmm. ma soog a jóg nag ma ne ko nag dinaa du ma ne la c'est trop waaye yéex ngaa jóg mm-hmm. waaw bu fekkoon lii jiitaloon ko ko bu fekkee da ngay ñàkk sa mbirum àdduna doo ñàkk lépp mm-hmm. waaye nag dinañ ci wàkkirlu yàlla suñ borom mm-hmm. ñu defal ko lañ koy defal mm-hmm. amaana lépp dellusiwaatul ci moom man damay wax yàlla rek tax mm-hmm. waaye lu ci bari suñ borom defal na ko ci sutura loolu nag li ma ciy wax da gis nit koo xam ne benn comédie bu ñàkk fayda la daan def wala muy def loo xam ne amul benn solo waaye ñaanlu ak bayre mën na koo yóbbu foo xam ne mun na ci am kër am ci oto am ci lu ne ñi nit ñaan kii nekk fi bërki dem fekk dafa fonk ñaan suñ borom amul dara lu muy def te du ko def sans intermédiaire lépp lu muy def daf koy jaarale ci nit ñi mboolem li nit ki sàkku ak di ko wut nag lu ci tane ñaan amul boo gisee ñu ciy nax nit ñeeg yu mel noonu lim doon dëgg moo tax mm, mm. tubaab yi nga xam ne dañoo nekk Amérique sax gëm nañ ñaan mm. almaa bi gëm na ko man damay am ay tubaab yoo xam ne ay nit ñu weex ñoo xam ne dañuy ñëw fii di ma ñaan ay nit leen indi ci man surtout li nga xam ne mooy wàllum noob li ma ciy defal tubaab yi kenn xamul tollu ndax ñoom lu ñu bëgg mbirum noob lañ mm-hmm. waaye li ma la ci bëgg xamal rek mooy ñun ñi nga xam ne ay nit ñu ñuul lañ mm-hmm. ñaan doon suñ cosaan nekk fii base ñun rek ñoo koy critiquer waaye rek lu ci bari du ma ci wax kenn dara lu ci bari ci ñun sëriñ si la mm-hmm. jafe-jafe bi ci am ci ñun la dinaa la bàyyi nga ñëw ci d'accord damay ñëw ci wàllu seet wàllu wàllu seet li ku jóg ni man damay seet wàllu seet mën nga ko faram fàjjal waa seet nag man du ma jëflanteeg nit ci dara ci mbiram te seetuma ko mm-hmm. ndax seet mën naa ne mooy buntub ñaan mm-hmm. seet nag am na ñu naan ay ramli ay pétaaw yooyu yëpp baax na waaye man du ma seete ci fànn yooyu man xam-xam bi ma yor ci seet mm-hmm. xam-xam la boo xam ne ma nga jóge ca mag ña xam-xam la boo xam ne bu ma la waxoon cay cosaanam di nga xam ne lii lu wér la te ci benn rab la jógee benn rab boo xam ne bu ma neexoon ma tuddal la tur wi looy jëfandikoo ànd ak yàlla wu màgg nag boo xam ne boo ko dee zikkar da ngay gis jëxran booy nelaw da ngay gis boo yow loo bëgg xam sax danga koy xam faf mm, mm. man bu ma nee nit ki dinaa la tuddal tur yi nga xam ne ñoom nga séqal mbir ba nga mën a gindiku ci li ma lay seetal ma soog wax sa mbir mm-hmm. weesoo li nga xam ne moom mooy sarax ci wàllu seet dama ciy gindi dama ciy daf dama ciy jalbu dama ciy def lépp loo xam ne lu ma neex la ci sarax rek mm-hmm. gis nga nga baal ma mbokk mi dangay gis nit koo xam ne dafa waroon a génne këram mm-hmm. jëm si ci tali bi am lu ko waroon a gaar mu war faa dajeek oto juste mhm. mu def sarax suñ borom dina indi retard boo xam ne dina mucc ca loola keroog mhm. muy bakkan boo xam ne dafa naroon sarax day fekk dund nit ki mhm. sarax day nekk fekk nit ki nga xam ne amul woon dara ngay faral di fonk say sarax xam sa rawxaan xam sa burgiyu sarax indi la ba nga yëkkati ko yëkkati goo xam ne dina yëpp dina yéem képp ku yàlla bind sarax sëriñ bi suñ borom moo wax ne innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakin ba muy wax baat booba baatub sadaqaat sarax la jëfandikoo kon sarax lu ko ëpp importance amul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sarax dafa baax ba wax na ne sax yombal xiyaam ñetteelu ker yi nga xam ne mhm. doomu aadama daf ciy taxaw mu di ko muuraay digganteem ak jant bi ak tàngaay ba ñetteelu ker boobu mhm. keru sarax la mhm. kon sarax am na importance kon bu ko defee li ci nekk lépp mënee su ko wax waaye ñu tënk rek jàll ci yeneen question yi bu ko defee mu gaaw mu mel ni des fois <laughs> da ngay xaw di raar des fois sax da ngay xaw di naqare jot euh, bu ma waxtaan ak yow nga ni ma damaa nekk ci aajo jàmm ñi mu mel ni danga nga engagé wu ci loo xam ne bëriwul sëriñ ñu ko jëme muy xalwatu xalwatu nag riyaada yi nga xam ne ñu ngi ko ci def yow mi tey boo ñëwoon na ma sëriñ bi damaa bëgg nga duggal ma xalwatu mhm. danaa la laaj ndax am nga soxna dinaa la laaj ndax am nga njaboot du ku nekk lañ koy defal déedéet du ko nekk lañ koy defal nit ki nga xam ne maqaam waxuma maqaama de li ma jubloo wax ci maqaam mooy nit ki nga xam ne bu fekkee da nga yër mbirum baatinam am na cër bu ko yàlla jox mhm. mooy am na njaboot am na soxna wala nit la koo xam ne ci nit ñi nga xam ne ñu suñ borom prévoir la bokk loolu nag xam-xam moo ko mën a découvrir moo ko mën a génne mhm. ci laa lay soog a waxtaanee ak yow ba duggal la xalwa mhm. xalwatu yi may dugg nag am na ñetti fan am na juróom-ñaareelu fan am na ba quarante jours mhm. waaye nag li ëpp ci li ñuy dugg mooy ñetti fan ndax xat-xati jamono naqaree jot gi de loolu moo ko waral te du ku nekk lañ koy defal nag bala ñu koo defal nit ki dañ koy jarbu ba teg ko fu wóor ci xam bu leer waaye xalwatu képp kuñ ko defal wallahi alazim wallahi wa rabbul kaaba fu mu la mënoon a fekk ci sa adduna dina la jëlee fii mu yóbbu la foo xam ne di nga xam ne ne xalwatu am na importance ci dundu nit ba ci ku nekk prison xanaa yëgoon ne dañ koy defal xalwatu ku nekk prison koo xam ne taxawagul ñu ñu def projet bi dañ koy duggal xalwatu ki nga xam ne dañoo def projet ba noppi dañ koy duggal xalwatu ñetti fan rek laa damay ku mën doon ak lu ko fa mën a téye bi sallallahu alayhi wa ko defalee xalwatu day génn ah, ak lu ah, ko ah. fa mën a téye nag ak ku ko mën a téye na doon procureur bi dàq jàpp ci àdduna bi ku mën a doon bu ñu ko defalee day génn loolu laa sàkk amul dara luñ ciy sikki sàkk ah, ma wax la ko nga bàyyi ci xel xalootu daal importance am foo ko takk rek weesu na ko voilà mu ngi noonu yéen ñu koy suivre ku ko bëgg a jot mu ngi noonu di Serigne Mbacke Nouroullah numéro téléphone bi di 77 788 87 85 boo ko woowee di ko jot fajkatu aajo bi ah damay ñëw ci loo xam ni jamono ji lëmbe na réew mi mhm. tës na sëy yu bëri mhm. te man ma xam ci ñoo xamante ni dem nañ sax ba lay tuddee ay doom di la dénk seeni doom mhm. muy wàllu sëy mhm. néew kàttan tas sëy yu bëri te képp ko ci mos a jëflanteel ñii tourné nañ dina tuddee ay doom te man xam naa ci dara waaw loolu sant yàlla la li ma la doon wax ci cosaanul ñaan mhm. fa nga koy teg rek mooy lu ci ëpp looy jàng la ginnaaw bi jagleeg sunu borom nekkee ci yow am na ci loo xam ne neexul leeral waaye day euh, mbirum euh, kàttan nga wax de bari na lu ma ci dimbale ci ay nit. Mhm. ba ci nit ki nga xam ne sax dafa të am doom ndax bari na koo xam ne. Mhm. ja mën naa sëy waaye mënul am doom. Mhm. bari na koo xam ne dafa néew kàttan. bari na koo xam ne mbirum kàttan dafay bari ci lu muy jógee am na ci koo xam ne sëy ku mu sëyal sax daf ko fay jëlee. am na koo xam ne feebar la boo xam ne lu mu lekk la. am na ci koo xam ne. Euh, lu ko gaar la am na ci ñoo xam ne ci biir yu metti man na waaye man de li ma ciy wax bariwul barki yonente bi barki alxuraanul azim néew kàttan benn traitement bi ma lay jox ci jour bi nga ko jëlee ci ngay gis ne baax na benn laa mënta faj mooy bi nga xam ne nit ki daf koo judduwaale bu dul boobu barki yonente bi dama koy saafara ci benn fan benn fan jërul ngay sonn jërul ngay woote bay bëgg dee bu la neexee nga tée sa xaalis ma jox la li ma lay jox ci wàllu kàttan benn yoon boo ko ko jëlee boo gis résultat man ngaa couper sa téléphone bañ maa woote dëkk na ma nit booba yëf yi demeegul nii daf ma moom moo ma suuluyee li may wax dama koy wax ci lu leer nekk naag jabaram trois ans mënta am doom at mi ma fa dëkkee ca la am doom teraanga ju ne mi ngi koy séq ak man lu nekk defal na ma ko ku yàlla dimbaloon ko bari barke te loola ca yàlla ci man la ko jaarale mi ngi doon sëy de di def lépp waaye la tee mu man a am doon loolu jàngoro la loolu dañ koy saafara nu mu gën a gaawee gis nga plante yi produit garab yii ngay gis nii mu nekk ci àll bi mm-hmm. lu mënul saafara amul suñ borom def koo wàcce ngir wanu nazilu min alquran maa huwa sifaa wàcce gi suñ mu ñuy saafaraal mm-hmm. daf cee bokk ci garab yi nga xam ne moom mooy ci àll bi loolu mbirum baatin la mu ci làqatu mhm. man dama ciy saafara dama ciy faj dama ciy def dama ciy dindi mhm. ci kàttanug suñ borom ak ci màggam mhm. lu ma la ci wax wutal yat ak buum nga teg ko dara du ko dindi barki Serigne Saliou jaajëf Serigne mu mel ne bi ma annoncé nii tey yow laay seet si diaspora bi nag xaw ma foo leen jàpp mais ñoom ñëpp ma topp di ma bëgg a rey di ma bëgg a rey laajal ñu sëriñ bi dañoo bëgg mu liggéeyal ñu wàllu papier ñu bari nekk diaspora bi am jafe-jafe papier diaspora ñi nekk ci réew mi laa ci bokk yamale mbirum këyit ku ma ci ñaanal nga am ko bari na ñoo xam ne yàgg gañ yàgg ci dëkk ba ñàkk këyit moo ko mhm. man am na ñoo xam ne man ak ñoom ñoo bokk benn koñ xam nga loolu du ay risque la mhm. bari na sëriñ soo xam ne sax fañ dëkk dañuy làqutoo man fa ma dëkk fa njëkk a toj naa fa ay nit ñu tukki nit tukki nañ am jafe-jafe kayit ma ñu bari ñu ñëw barki alxuraan am ne sax xarit lañ man ak ñoom ñoo daan ànd ñoo fawandoo ñoo defandoo lépp loolu lee loolu xam-xam la rek méttiwul mën na ko jàngaloon yow mii nga xam ko nit wàllum këyit daal dama la cee bëgg a jox benn secret moo xam sax nit kiy déposé bëgg a liggéey li ma lay jox bu ma la ko joxee nga lakk ko boole ko moom sangoo ko force dañ lay jël boo déposé da ngay dem bu doon sa këyit dafa nekk en xamoo ci dara bu ma defloo sarax bi ma defal da ngay dem ña nekk bitim réew yàgg faak lu mu ci mën a doon nañ dëggante bu ñu ragal gaa yi ñu ci bari sonn nañ ñu ci bari sëriñ bi nii nag sëriñ su ci bari ay comédien lañ dañuy toog di wax nit ñi di am na ñoo xam ne bu ñu bëggee mhm. reetaan dañuy dem ci internet bi tapé sëriñ si man bokkuma ci sëriñ soosu falaa jëm bàyyil ma eggale ko benn yoon rek. ndax ñu mën a tënk waxtaan mu gàtt. d'accord d'accord. li tax ma wax la loolu mooy ñoo xam ne man am na benn kilifa goo xam ne dafa maa woo na ma yow de bëri woo def émission ma ne ko sama jot moo ma ko mayul. Mhm. mu ne ma man de boo bëggee reetaan ci sëriñ si laay dem di seetaan naka ma waaye yow de damay seetaan sa waxtaan waaye la ngay wax naa nga makki naa ma ne ko bul jëm foofu. Mhm. ndax bëgguma kuy ñëw cib sëriñ di wax may yàq nit wala may waaye nañ def attention da ngay gis sëriñ boo xam ne lañ koy seetaaneek la muy wax lépp ay mbirum comédie la ak naa ab sëriñ kenn xaaru ko foofu hmm. ab sëriñ nit la ko am personnalité hmm. nit la koo xam ne dafa wuuteeg nit ñi hmm. ndax dafa jàng ba jàng jotee yu bari yi nit ñi def ab sëriñ ñi mu wut taxaw ci mbedd mi yor cigarette donte cigarette sax ñi koy tux nañ ma baal ak dama koy saafara wax la rek ba dugg ci benn ñaan laa la ci defal benn ci suur bi nga koy bàyyi. cigarette loolu sax yëkkatiwu ma mais dama dama lay indi rek. non fa loolu faa nga leeral loolu leeral ko a bàyyi moo ma wooyee da nga koy bàyyi nu mu gën a gaawee. tux waaw tux waaye li ma bëgg a wax fa mooy ab sëriñ yu bari moom nit yi man mun ko mënoo taxaw ci mbedd mi wala ngay def lenn loolu nag la boo xam ne dafa nekk ci ñun bu la ko yàlla joxee da nga koy sàmm hmm. nit yaakaar la woo la jàq kooku déglu ko nga wax ak moom teg ko ci yoon man am na ñoo xam ne ñaan laa doon seq ñoom dañuy dem ba jébbalu ci man ngir doy guñ ma doyloo ngir dal gunu gis ci man loolu defuma ko ci sama jëmm yàlla moo ko def ci man hmm. gis nga ko am xam-xam boo ne koo jàkk rek di nga ko xam hmm. soxlawul sax ngay soree nga am na ci sëriñ soo xam dañoo tilim yoo xamuñ dara dañuy nekk ci internet bi mbelelele nit ñi di leen reetaan <laughs> loolu nañ koy éviter nañu moytu yooyu noonu yooyu baaxul ñi ngi yàq sunu image ñun ñi ne ay sëriñ ay sëriñ lan hmm. bari na ci ñoo xam ne danoo woon ci mbir mu kalaate ñu daw ne dañuy ñaan mhm. ñooñ nag ñi leen di jox seen xaalis di leen ñaan ñaanloo mhm. ñu ngi yàq seen énergie mhm. coow kese lañ cee jëlee ak xuloo ginnaaw baak yu mel noonu parce que man ñi may woo di ma réclamer sëriñ si am na ñoo xam dañoo kalaat ñemetuñoo def sax émission man amul benn mbindeef bu mën a taxaw ne sëriñ bi yoreel na ma yoreel na ma dara wala séq na maak moom dara ma am ci lu ko naqari wëral sama émission yëpp doo ci gis benn commentaire bu négatif doo gis benn nit bu taxaw wax lu négatif ci man. alhamdulilah man boo ma gisee nii ma mel rek da ngay xam ne suñu borom daf maa dimbale daf maa teral. Hmm. bu ma soloon yëre tubaab sax da xam ne kii am na lu nekk ci moom. loolu du ñëpp ñoo ko mën a mel ne nag fi xaw a jeexalee am naa dañuy tëj foofu waaw. fi may xaw a jeexalee muy da nga engagé wu. Mhm. li gën a raar ci nit ñi. Mhm. moom ngay utiliser. Mhm. muy turu yàlla. turu yàlla dafa bari ay importance yu mu am yallaahu yaa rahmaanu yaa muminu yaa muhayminu yaa mm-hmm. asisu yaa jabaaru mm-hmm. ay turi yàlla yoo xam ne benn bu ci nekk boo dóoree mm-hmm. day dal mel ni martu bi nga jël teg ko ci pont bi booy dóor day day jàll benn bu ci nekk nit daf may woo ma ne ko jëlal turu yàlla sànkam nga sikkar ko nàngam yoon du bari de du mat sax ñetti téeméer wala ca lay yem ñetti fan ci mbir ma nga xam ne ma ngi koy sàkku da nga cey jaare da nga cey gis ubbi ko ak tawféex goo xam ne yàlla suñ borom rek moo ko mën a xam mhm. waaye nag turu yàlla ci la lépp nekk mhm. man dama ciy def dama ciy din dafa am loo xam ne du mbirum saahir mbirum baatin la mhm. waaye daal mi ngi intéressé ki nga xam ne moom laa dégganteel lu ma ko ci wax rek dara du ci dañ ci kattanuk suñ borom ak ci màggam di wax ne nit ñi nañuy zikkar yaa rahmaanu day yombal ay mbir day baaxal ay mbir day setal ab xol day tax nit ki nekk ci ak dal day yombal lépp loo xam ne nit ki daf koy sàkk mhm. moom yaa raxmaanu mhm. dee ko faral di zikkar lim bi nu mu toll baax na mhm. bari na ci tur yàlla yoo xam ne noonu la ñu xamee seen i zekere waaye lépp dafa xajul ci waxtaan waaye dama ciy def dama ciy dindi ci kattanuk suñu borom ak ci màggal ak ci baaxuk sëriñ Saalihu jërëjëf sëriñ bi ah mu mel ni nag wax dëgg yàlla man doyal ma ci waxtaan bi parce say wax euh, ndaw ñi dañ koo soxla mag ñi soxla ko te vraiment li ngay wax nii ku ko dégg xam ni du waxi neen waxi baatin la ah, doyaluñ nag waaye dinañ fi ñëwaat moom même bu dee sax dag ñuy mayaat yeneen xat nga lool nekk ci yoon waaye ñu ngi jégalu ci sa waxtu wi nga xam ne jël nañ ko dañ lay bàyyi nga sant ak tàggoog ñi nga xam ne ñoo lay suivre ci people 221 maa ngi sant euh, di gërëm euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo may jàppale hmm. ndax am naa équipe boo xam ne dañ may taxawu su ma leen woowee dañuy jóg ndax am na ci liggéey yoo xam ne damay lott ci di ko def lu mel ni bu may génn ji ay sarax ci yenn bërëb yeeg ci daral yu mel noonu hmm. maa ngi leen sant di leen gërëm soxlawul di tudd seeni ay tur hmm. am na ci bi woo ma siq ak man lu nekk. Mhm. di ma nemmiku waxtu wu nekk di jëfandikoo man lu nekk te dañ may gis ci internet bi rek. Mhm. bari na ci ñoo xam ne soxlawul it may tudd seen tur waaye xam nañ seen bopp maa ngi sant di gërëm. Mhm. ma di ci sant bu baax di ci gërëm ki nga xam ak naa ne moo ko def ci man. te nit ñi bëgg nañ ma ci loolu. ma di ci sant di ci gërëm. di la sant sa taxawaay rafet na. ndax bariwul ñooy defal émission ndax sa mbir fi ko teg dafa leer. te it nit am importance nga man dama lay béggee. maa ngi sant di équipe bi nga àndal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf